وجهت وجهي لمن هدي jërë ngeen jëf mbokki julliti ak mbokki taalibe yi ci ànd gi ngeen di ànd ak Mouride TV saa su nekk ci réew mi ak bitim réew ci xidmatul xaddim tey jii ci àjjuma ji nag ñu àndoon ak yéen fële ca Daaru Salaam ngir waajtaayug màggalug Daaru Salaam màggalug Daaru Salaam ji jii war a doon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août 2016 di bis bi nga xamne ni ci lañuy ngan gu am solo gi serigne maam cheikh anta mbàkke borom daru salam ak gawan don ganele serigne tuba cheikhul khadim ginnaw bu mu jugee ci tukem bi ci atum 1902 magal gogu nak wala bis bobu sa suy jub si mboolem jullit yi ak talibi rawti na ñi nga xamne ni dañoo aju ci ko ci bepp anam tey ji ci ji nak mbale akup set setal amal nañ ko wër daru salam ak liko wër jullit yi ak taalibe rawti aju ci kër gi ko non touba Mbàkke ak gaawaan ñëw fii ci Daaru Salaam fasantikoo ci ay kuréel moo xam muy daara daayira wala association ngir setal dëkk bu tedd bii lépp nag di waajal li nga xam ne nii moo di màggaluk Daaru Salaam war a doon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août 2016. association takku jóg sàkku ndam Touba Tabla Njenne sunu taxawaay tey ci Daaru Salaam. mooy ku nekk xam na ne kenn mënul tudd yoonu murit te tuddloo daaru salaam ndax lépp daaru salaam la te ñu nekk ay ndaw yoo xam ne danoo nekk biir Touba taxawal benn association association nag bu ñu ko day baatum nasaraan waaye bu duggee biir Touba rek daanaka day tënku ci daayira muy ndaw yoo xam ne dañuy ànd di jëfal sëriñ bi kon bu sëriñ bi wootee ne nanu sellal daaru salaam seetal ko kenn duñu fi njëkk te kenn duñu fi mujj di ñaan nag ki dara jee sëriñ mbooloo mi noo àndat ak ñin fekk képp ku ñu fekk. lépp lu ci waay di sàkku si yàlla na ko sama defal bi jaay mu Moustapha association mu ngi tudd jàppoo liggéey Serigne Touba euh, ak solidarité ñi gën leen waa xam si waa SDR ñoo ñoo booloo doon benn ndax dafa nekk loo xam ne nii ñoo ngi bàyyeekoo Daaru Marnaan 2 ak euh, Xayra 2 ñoom ñaari kii ñaari penc yooyu ñoo li nga xam ne moo leen euh, séq ñu bàyyi ko tamit si penc soxna Xadi Mbàkke li ñu taxawee fi tey jii nga xam ne tey jii moom la maam Cheikh Anta Mbàkke di woote muy liggéey Serigne Touba waaw li may xam ne moom laa leen di soññee mooy li ñuy a takkaat laxasaay a jubluwaay ci liggéey Serigne nga xam ne moom moo fi des ndax fi nekk jamono ñu toll nii dara des bi lu liggéey Serigne Touba ndax liggéey Serigne Touba de yaakaar ne Serigne Touba ma ku ma naat dafay ëllëg du may liggéeyloo sama dëkk bii nii kon bu ñu demee ba nga xam ne ñu nañ nekk ay ndaw Serigne Touba ñor ñu Serigne Saliou defar ñu ba nga xam ne nga nekk si dëkkam bii ni ko loolu sant baax a baax la may may leen di ñaan nag lépp loo xam ne ni mën nañu koy jàpp muy jeunesse yi nga xam ñoo nekk pour liggéey Serigne Touba li leen mënta jappé rek ñu jappalé nga xam ne tax leen jox jóg liggéey Serigne Touba rek mo leen tax jox ñun ñoo ngi tudd Ahlu Xidma baye ko fi ba Touba Tali bu bees waaw daru salam dafa nekk dekk way bo xamanteni bokku na ci dekk yi nga xam la Serigne Touba jëk a tuddé ko daru salam moy dekkub jàmm bi kon képp ko xamanteni ci Serigne Touba ngaaju bu fekkee dem nañ ba nga xamanteni dañ fa woote lo xam digël la te li Serigne Saliou daan wax rek naan ndigal moom caabi la boo pee du tijji bu manqué itam du tijji te mu nekk dëkk boo xamante ni comme que dëkkub jàmm la ak dëkkub salaam buñ fi woote ko nañuy sawar a ñëw ndax ñun Serigne Touba rek lañ yaakaar ci biir loolu itam ahlu xidma li mu tudd ahlu xidma dañ ko nemmeeku ci biir téere Serigne Touba kon jàpp nañ ne bu fekkee dañ ne xidma rek Serigne Touba moom moom moom moom xidma kon bu ñu wootee Daaru Salaam dañuy sawar pour ñëw fi ngir sàkk ci fi tuyaab ak ngërëm loolu rek lañuy loolu rek lañu fi sàkku si du leneen bi mooy association bokk gëm-gëm ànd suqali Touba te lu bees fii Touba Télébès lañ jógee Daaru Salaam moom suñu taxawaay dafay rëy lool lool lool ndax suñu association bokkam gi bi suñu njiit gi sëñ Modou jaañ moom fi la bokk ci waa Daaru Salaam la bokk ak suñu ak suñu conseil Saliou Gueye te ñun fii ñu dal ñu tey suñu Amdi Diop mooy mooy borom bis bi ndax moom bu lu fu ñu tey fu ñu egg ni ñun tey association bokkam gam moo ñu fi eggale waaye liggéey Serigne Touba moom dafa amul xaaj amul seen maanaam fépp li ñuy liggéey ñun amuñu ñu fu ñu xam ni fii liggéey Serigne Touba lañ fi def muy wàllum mbale du wàllum buret wàllum togg lu lu mu laaj te xam di liggéey Serigne Touba rek moom moo ñu tax a jug ñun fédération yi nga xam te mooy taxawal muy waa association euh, euh, ahlu xidma waa association ak ñeen ñeen ñoo xam te ñun ñëpp ñoo ànd fédération ànd doon benn mu xam ne liggéey Serigne Touba moo dafa amul xaj amul seen ñun amuñu fu ñu bale ak fu ñu bale tàmmuñ ci fenn ñun daal li ñu wërti woo daal mooy mooy fu sëñ mi nekk rek dañ fa ne daayira bi de nun nooy waa Lamp Fall toog ñëpp nun daal noo ngi ci bëgg Serigne Touba yem ci Serigne Touba di liggéeyal Serigne Touba rek. xam naa ne liggéeyub Serigne Touba ñun fu ñu ko dégg rek takk nañu sunu laxasaay bëggunu dara nag Serigne Touba rek kanu ñor maam Seera Fall rek kese ñiy toog ñëpp waa Lamp Fall lañu tey day danoo xëy dem bale jumaay ja ba mu set. lu def wenn saay rek fas yéenee liggéey luy borom gaawaan. ci mbale mi daal nu topp ko ba fu mu yem rek waaw nu liggéeyal Serigne Touba rek ndax liggéeyal Serigne Touba rek moo am njëriñ fii ak fa nu jëm. ak Cheikh Anta borom dërëm a ngërëm. Mhm. yàlla mi am pay. Mhm. yàlla na leen fay ngeen gi fay. Mhm. te lafal nu cat. ñu eggale liggéey bi. ñi ci ndigal tey ñi ci ndigal ëllëg. lu ngeen bëgg bëgg nañ ko lu ngeen bañ bañ nañ loola mhm. yeen wa kër señ Touba yeen ay doon lo doon mu dëgër waaw li ngeen doon te li dëgër na mhm. ku ko defuti da nga wacc nga sa loxo mu dal ci ëkk ab jana gannaaw loolu commune bu Touba ak commune Mbacké ak kuréel yi nga xam ne dañuy yëngu ci set ak setal ñoom itam feeñal nañ bu baax a baax seen yéene ci mbalem Daaru Salaam UCG donc courel go xam ni koy wax unité de coordination de la gestion des déchets solides mu di bangas go xam dañ ko jokk ci ministère de la gouvernance sociale du développement et de l'aménagement du territoire bi Abdoulaye Diouf donc unité de coordination de la gestion des déchets ëmb na ay projet ak programme yu bari liko melni programme national de gestion des déchets PGDSU UCG nak boo koy donc euh, ci bop bi euh, coordinateur national mo fa nek mu tudd Ibrahima Diagne donc comme nous ñuy été... instruction ci kilifa yi rawatina moom mi di coordinateur unité de coordination de la gestion des déchets par rapport ak cër bi mu jox ci këru diine yi donc def nañu fu mu am euh, activité wala manifestation wala màggal wala waajtaayu benn opération xew-xewu diine nañ ca taxaw taxawaay ba ca wàllu UCG ñu def ko def bu mucc ay rawatina donc màggalu daaru salaam bi donc ñu ngi ci waajtaay bi donc sëñ bi mu jotee kilifa gi ba euh, wax ko ay bëgg-bëggam donc daf ñu jox instruction ñu ñëw taxaw ci taxawaayu màggal bi également organisation bés bi également ñëw nañ ci ak ñaari benn ñaari camion ben camion 20 euh, mètres avec ak euh, benn camion polyben bu am caisse boo également dañ ko mën wàcce yëkkatiwaat ko également déployé nañu personnel bu tollu ci 18 personnes réparti en trois équipes ñaari équipe bi accompagner camion yi pour le ramassage des dépôts sauvages ñeneen ni également ñu tek leen ci axe Mbacké Darou Salam donc pour le désensablement génne souf bi nek ci kaw tali bi pour permettre gani bu ñuy ñëw gatandu dugg dugu dugu Daru Darou Salam nek dugu bu mucc ayib ni ko mbokki taalibe yendo bub daru salam mo xam muy biir kër yi mbedd yi ruq yi ak ruqaat yi ba ci armeel yi daaru salaam yi biñ noppee dajalo non ci mbar mi nga xam ni mo nek ci buntu kër mam Cheikh Anta Mbacke ngir taatan kaddo ciant kaddo ngeureum way ak ay ñaan yo xam ni mu ngi ko ci serigne djili Abdou Khadre Mbacke mi nga xam ni mo fi toog jataayub mam Cheikh Anta Mbacke. bi neena ngeen xam ni Touba de yag nako no de ki tankam ndax fi ko sancee def na fi ñaari at doo ko gis leerug Touba sanc Touba ñaari at yooyu sëñ Touba nekk fii itam fii ñu jàkkaarlool di barabu sëñ Gaawaar moo nekkoon néegub Sëriñ Touba fee jumaa ji nekk te it fala la jumaa yi sëñ Touba nekkoon mu ko daan baaganteel boppam béréb bi itam Sëriñ Touba soppoon ko lool bëggoon ko lool ba bi mu nekkee ci tukki bi di di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana nam mu dëkk bi nammeel goo xam ni daraan jéggi dayo buñ demee ci mbindam itam sëriñ bi nee di ngeen gis fu bëri fu sëñ Tuubaa di binde di tudd Daaru Salaam lu ci bëri ci tukki bi la ko doon defee waaye itam àggoon na sax di ñaan yàlla boroomam subhaanahu wa taala naan ko damaa bëgg nga delloowaat ma ci sama dëkk ba tudd Daaru Salaam ci bu gaaw saaltuhu bil Mustafa xayril anam taxzila awbati ila daari salaam yow yàlla yàlla nga ma delloowaat ci sama dëkk ba ci bu gaaw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax Daaru Salaam gi la doon wax sëriñ bi itam nee na ñu bàyyi xel ci ni fanku sëñ Tuubaa àggoon na ci dëkk bii saa yoo gisee muy bind aw ci ab ba yàgg mu ni duuri yi tudd aw dëkkam nee na fenn rek la ci jublu muy daaru salaam daan wax itam ni dëkk la boo xam ni e, malaaka yi laaj ci biir bàmmeel de xamuñu boobu dëkk di daaru salaam daan wax itam ni dëkk la boo xam ni ku fa fanaan ñetti guddi sa yaram araamal na sawara mboolem mag ñi àndoon ak Serigne Touba itam ci dëkk bii lañ njëkk a dégg ngërëm fii te ay armeel nekk tey moo nekkoon tokkóorub maam Cheikh Ibrahima faal bi nga xam fi la daan bàyyee la Serigne Touba soo duggee ci biir amna fa garab gu fa ne go xam dañ ko clôturer legi seigne touba dana xana naan fi toog ne Kaaba nga xam batu rasul dëkk bi di daru salam itam seigne touba bim fi nekké dajale won na fi mbolem njabotam yep ñu ne fi ba Cheikh Amadou Moustapha gane fi adina Cheikh Amadou fadoul gane fi adina dëkk bi di daru salam itam seigne touba bim jugge ci ca ba liggey liggéeyam bu reey ba ba yàlla gërëm ko ba muy dëpp dañi won seigne gawan jitu ma Daaru Salaam foo ma dama fa jaar waye ngan gi daru salam la te tukki bobé tay ci lañ yaakaare texe eh, tey ak ëllëg te ci ko amee itam ndax ma waxoon ni ijan rujuuxan illa xaw mi saharatna wala tak fi naa yow ma jem xalxi niiraana te ñu xam ni sëriñ bi nee na bis bii ngeen ngeen fi yendu di setal dëkk bi jublu ngi leen lu du waajal ñaan gu réy googu sëñ Tuubaa ñaanoon kon ngi teewaay bii ngeen fi teew liggéey fi liggéey yu yi ngeen fi liggéey sëriñ bi nee na sëñ gaawaan gis na ko te ku ne xam na ni sëñ gaawaan lu mu gis gërëm ko sëñ tubaa gërëm ko ndax sëñ gaawaan mooy rek sëñ tubaa ja nga xam ni moo njëkk a jébbalu ci moom mooy rek sëñ tubaa ja nga xam ni moom la sëñ tubaa njëkk a jox ngërëm seexal ko mooy rek sëñ tubaa ji nga xam ni moom la sëñ tubaa njëkk a wàññi lu manqué téeméeri taalibe yi manqué benn jox ko mooy dëkk rek sëñ tubaa ji nga xam ni moom la sëñ tubaa njëkk a joxub dëkk mooy rek sëñ tubaa ji nga xam ni bi sëñ tubaa jugee ci géej gi moo ko njëkk a jox loxo mooy rek sëñ tubaa ja nga xam ni ba sëñ mu loo demee fekk sëñ tubaa ki tukki ba dañu ko ana cheikh mu ni ko ma nga fa mu ni ko namm naa ko loolu demal wool ma ko Tuubaa nag kum dem balay nam rek kum def sa bopp la kon dëkk bi dëkk dëkkam sëñ gaawaan la waaye ko am ngërëmal sëñ gaawaan ku ne am ngërëmal Serigne mbir ni seen liggéey bi sëñ gaawaan gërëm na ko Serigne tubaa gërëm na ko yonent bi sallallahu alayhi gërëm na ko waaw maa ngi nuyoo di sant bu baax ci mbale mii ñu doon amal tey ci Daaru Salaam di ñaanal Serigne si fi nekk fii di ñaanal sëñ Abdou Khadir Mbacke Serigne Abdou Mbacke Serigne Cheikh Anta Mbacke ak mboolem sëti sëñ Modou Mamoun di sant bu baax mbooloo mi fi teewoon tey di sant soxna maam Isa Mbàkke soxna Ayda toog nii ci sama wet di xamal soxna si ne mi ngi ci tukki waaye mbooloo mépp teew nañ kenn desut di sant sëñ Abdoulou mi sëñ Birane sek dëkk bi nag moom dañ leen di bàyyee sëñ gaawaan rek dëkk bi dañ leen di bàyyee sëñ gaawaan mbale mi ñi ñu ko àndaloon jëwriñ Njaga Njaay jëwriñ Maxtaar Wadd soxna Rama Cissé soxna May Guèye soxna Ummi soxna Marème Bitey ñu ngi te tay sant Serigne Daouda djey bu baax moom itam ci taxaway gi ak jotal gi te sant Serigne fallo Gala sila Sylla itam yebal na fi radio yi yebal fi tele yi yebal fi ñëpp japp nañ ci bu baax rek de sant daayira seut imam seexante yi ak seut serigne Modou mamane ñun dal mbale mi tay kawé na sunu njort gën na yok ci mbale mi tay ci lañ xamé ne mbirum sëñ bi mom amu tank ginaaw tank kanam rek la am